maanaam li nga xam ne nii Sénégalais yi ñu ngi koy def loo xam ne ni c'est pas loolu moom bari na fi ndax boo xoolee ni kenn ku nekk dangay ngay def sa tayeefu bakkan rek ndax li ñu war a def dëggantaan moom buñ ko defoon yaakaar naa Sénégal romb na fi ndax nit da koy jaay café mu naan café ba pare romb ay poubelles yu bëri sànni ko ci digg tali bi yow mi nga xam ne yaa doon jaay yaay toppaat tali bi jëlaat kaas di ko ñëw di ko yóbbu sa poubelle comme lu ci mel ni transport bi des fois da ngay gis benn taximan buy daw ba ci digg tali bi mu droite di jël ki mu gaaree ci digg bi di jël di jël di jël client au que au que mu mu mu droite waaw te loolu yëpp c'est pas normal. boo lekkee tey jii sànni ci mbedd c'est pas joli rafetul man kon man démb yàlla moom mën a seede dara jarul mooy fen dama naan ndox ba pare aw ma fu ma ko sànni aw ma poubelle ma def ko sama sacoche ba ma si fii laa ko soog te loolu dëgg la yàlla moom moom kese moom mën a seede ndax moom ma gis. ba pare lekk sànni banaana ci kaw tëli tamit baaxul ndax nit bu ci dëggee mun na koo damm bu fekkee dafa nekk en état nekk début de grossesse tamit mun na koo yàqal loolu foog nit ñi di ko sóoraale. wàllu sécurité sécurité bi quoi surtout maris fii nii quoi maris fii nii eh, agression bi dafa bari sàcc bi dafa bari te toujours surtout fii nii barke démb rek la ñu sàcc fii nii benn moto quoi mm. benn moto jakarta te xam nga loolu yëpp te il faut ñu. sooraale wàllu sécurité bi quoi ñu jàppale askan bi quoi. wàllu góor jigéen yi yenn saa yi da ngay gis góor jigéen yoo xamante ne day bëgg a sëy ak beneen góor yoo xamante ne loolu da nekkul normal quoi góor ak góor waruñu sëy quoi. travaux yi ci tali bi gis nga dañuy commencé fii ah comm bàyyi commencé fële bàyyi commencé fële bàyyi commencé fële nga yaakaar ni ñoom ñoo ngi liggéey fekk liggéeyuñu dara ñu ko dañuy. tuur lëndëm nit ñi indi ay gars yi solo leen ay ay ay parce que nit ñi bu ñu gis gilet yi rek dañuy yaakaar ni liggéey baa ngi dox fekk liggéey bi doxul nan dimbali ngir yàlla ñu doxal liggéey bi ah, ñu xool bu baax li ñuy def. fu mu ne nii euh, étudiants yi nga xam ne ñu ngi génn biir université man étudiant la étudiants yi génn biir université wala boog soo demee biir université li nga fay fekk c'est du n'importe quoi. voilà c'est pas normal donc da ngay dem foofu war a nga am note yu baax war a nga ñëw ñuy jël sa logement ñëw jox ko keneen. te xam nga loolu loolu loolu c'est normal wax dëgg yàlla moo tax daanaka lu fi anormal ci dëkk bi bëri na